première ci ñi dàq jàng ci sénégal di ko tegle ñaari at ci commentaire yeeg yépp ñu fàtte ñu fàtte ñi nga xamante ni tey yàlla dimbali na leen baaxe leen ñu ci daara yi di jàng toog ci daara yi di jàng nga xam ni benn araf bu nu wax wala benn araf bi xale yi jàng yàlla dina leen curus ba dina téye asamaan ak suuf ba du tappoo ñu defal ko promotion bu rëy ko promotion bu rëy mais yemuñu si ñu yëkkati sunuy alal jox ko yóbbu ko France ci école yi gën a nekk lix mu nekk fa di jàng ba xëy suba ñu ni nee na dafa disparaître kenn gisutu ko te bi muy dem tàgguwul kenn dama ni gars loolu c'est louche ci limo mu expliqué ni parent li pa di sëriñ bay Thiam wax dama ni loolu c'est trop louche xam nga lu tax c'est trop louche mooy da ko seqal ay nit yoo xamante ni ay nit yu juba dinañu ay nit yu juba dinañu ay nit nañu yoo xamante ni tey boo leen doon tudd nde fekkente ni ci rabu àll yi la bokk danga nga naan ay janax nañu parce que ñu bare portu ñu bare pax lañu foo leen dàkk fii rek ñoo nga fa sa des waaye gis ngeen yi fi bokk am 14 milliards antur lalang Boubacar Sèye lan lan don pexé pour mën a gañe askan bi ñakul ba waxtaan ak xala bu jigen bi ñakul ba waxtaan ak xala bu jigen bi ci lo xamanteni amna lo xamanteni en tant que ko xamanteni sénégalais yi ñongi bayyi xel ci mom bu ko defee daanu mën a fàttalu bare ba ñom ñu def li ñu bëgg def yeen li jaaré saw expliquer est ce que lolu yeen convaincre na len am déet gaay est ce que lolu convaincre na len motax ma ni trop louche nak da fay jar gaay ñu partager ko ñu partager ko parce que amna solo trop waaw ñu partagé ko bu baax parce que am na solo torop loolu dafay jar nu bàyyiwaat xel bu baax a baax a baax a baax a baax a baax sunuy njiit donte bàyyi na leen xel mais dafay jar ñu gën a fagaru saa su nekk mais dafay jar moo xam réseaux sociaux yi moo xam média yi ak fu mu ci mënti doon am na ci lu bari loo xamante ni warul soxla ñu ciy biire di ko médiatiser ba mu nuy jural ay problème ba tax na ñuy fàtte yenn yi am na yoo xam waru koo jar ba tax ñuy fàtte yenn yi parce que ñoom bu fekkente ni ñoom bëgg nañu nga ànd ak ñoom wala bëgg nga ànd ak ñoom dinañ la dugal ci loko boo xamante ni sa ngor dootul nekk ci yow sa dignité dootul nekk ci yow sa jom dootul nekk ci yow sa fayda dootul nekk ci caw sa sa ngor sax danga koy jaay ndegam amoon nga ko muy benn boo xamante ni jar nañu taxaw seetlu ci ndax tey jaari bi nga xam dañ doon yaakaar ci moom kooku ndax ëllëg mën nañu waxatu loo xamante ni daf nuy gëm wala daf nuy convaincre en tant jigéen kooku ndax mën nañu waxatu loo xamante ni dafa nuy convaincre ndax kooku mën nañ kaa gëmalitu lu day na tarfatal ay ni fekk génnul leeral lii fekk génnul leeral lii loolu benn point la ci li nu bëgg wax